waaye Diagne efficace nag mbokk yi ku ko bëgg jot ku ne da nga koy sama xarit la waaw sama xarit la sama lépp la. dafa bëri ñoo xam ne dañ may woo toujours naa maa ngi toog ay 2 mois di la woo ay mois loolu noonu numéro whatsapp la numéro bi nga jàll numéro whatsapp la 76 mm-hmm. xam ne jotoo ñu rek. boo ñu ci whatsapp ci kàttanu yàlla dinañ ko liir bu lu mu aajoo ci kàttanu yàlla bu ñu ci kiyee dañ la ko liggéeyal allah jërëjëf. mi ngi noonu cant di leen joxe dig Eu sou. Eu sou Zé nga rafet rek at noomu solo solo ba gaay bare Modou na rafet rek at noomu at noomu solo reporté naa ko xaw ma ci dara sa palmarès waaw et sama combat laa reporté

càngar gu wóor gaa ngi noonu de waaw lépp lu ñu jox la lu wóor lay doon de te dañuy kaan yi waxee képp ku la jéemal dara dina def ni maanaam ni mooy loolu bàyyi fi la tudd comme ni kaan gi wexee ba xam ne kenn du ko jege kenn du ko laal ku bëgg ci yow jàmm wala jàmm dina la fi rombee noonu jàmm sinon dootu ko nett li ci ordinam waaw asalaamaaleykum tey nag ñi ñëw di leeral benn jàngatu fay coowu yaram buñ nee coowu yaram nag waxuñu coow li nga xamante ni nit ki da am ak police wala nit ki da am ak am mbooloo moo bëgg coow loolu fay ndax bu dee coow yooyu moom wax nit ñi ku bëgg a jëfandikoo ak ñun wala ku bëgg a déggante ak ñun fi nga jaar waaye bii coowul yaram ñu ko waxee mooy ki nga xamante ni dangay gis ñoo xam ne yëngu ci ay mbir nga dégg ñaar waa diw kat gis nga tey kër gi jënd wala diw gis nga oto yi maam fee wala gis nga ci soo yooyu noonu day dem ba topp nit ki bi nga xamante ni day dem ba tëj ay mbiram dem ba xam ne dangay gis ne dangay gis nit ko xam daa dugg ci ab business mu dox loolu nga dem ba jàng déggatoo ko waaw nga gis ba jàng mujj presse àll ko yu bare mel ñu bare bare càngat gii nii moo ci moo ci musal nit ñi bare bare càngat boo ko jëfandikoo képp koo xamante ni gis nga juróom-ñaari xarit safar yi lay àndal boole ak ay laaya arfan yoo xamante ni koo ko dégg bi nga xam ne du ay laaya yoo xam ne ku xam ne laay jariñ dina xam ci li muy dox moo juróom-ñaari xel yi ni ngay boole fayee ko gis nga ko bëri waa na ñoo xamante ni ñiy jëfandikoo ñi nga xam ne ñi ngi jëfandikoo ak ñun càngat gi ñu ci bëree ko dañ koy defal ñu bëree bëri waaye lii nga xamante ni xal yi fayee na ko mbir mi ci kàttanu yàlla mbir la moo xamante ni coow li nekk sa noonu la koy fayee ba pare day koo xam ne ba nuñ cee jot mën nañ cee ci 76 bi 349 24 99 ku ci bëgg a seetlu tamit sa wàllum yaram ak lu mën doon bu jëfandikoo bu ñu déggante dina ji saafara lépp ci kàttu yàlla incha allah bi jërëjëf.